si waroon mën a takk ba mu des na bu lay gii moo jaaxal ñépp moo jooyloo ñëpp moo jommiloo ñëpp na bu lay bu nit ñi tiisee tey moo tiisloo ñëpp bu nit ñi jooyee tey moo jooyloo ñëpp moom na bu lay hmm, gis nga ko fii ak mook Aziz ñoo doon nekk de di ànd di bége di fecc wéykat ba nag wéy na ko boobu juddoogunu bëñ lu mu weex-weex deret moo ko lal hmm. nee nañu la téléphone de Nabou Leye borné chez Aziz Dabala au moment du jamono ba ñuy def jëf ju ñaaw jooju Nabou Leye soriwuloon béréb boobu de lu ko ko jaral te ndeysaan xool ko fii nu mu signé ma gis Aziz it fii fecc ba bëgg jàpp Nabou Leye fecc kontaan ah kan la ñuy wóolooti jamono ji kan lañuy ñuy wóolooti moo tax nag ñii toog jamono ji si réseaux sociaux yi naan non mënumaa gëm Nabou Leye def loolu an kay gëm leen ko mais gis nu doom faat baay loolu gën a garaaw fop mosu leen gis loolu doom faat pap doom faat baay mosu leen ko gis kon yéen ñii di toog naan mënumaa gëm ankay gëm leen ko tout est possible dans ce monde tout est possible rien impossible doom faat yaay doom faat baay yaay faat doom am na papa faat yaay am na maanaam papa faat jabar wala jabar faat jëkkër am na de waa sëgam jëkkër moo mën a faat jabar wala jabar faat jëkkër wala yaay faat doom wala doom faat papa waa ko pourquoi pas Nabou mënul faat Aziz wala yabal ñu faat lu ko donc bu kenn mënul nekk mu ak mën a nekk <laughs> jamono ji lu mënul nekk amut lu mënul nekk amut fépp nag ci àdduna neel yow peut-être doo def peut-être wala jomb nga ko def mais bul waatal mukk nit ne nit ki du def loolu déedéet teey teey rek doomu aadama mën nga waatal sa bopp ne añ bi añuma si mais bul waatal keneen ne añ bi añu si parce que ba mu koy añ fekkee woo hmm, hmm, hmm. Ah, adduna jaay na leen de gisaluma ko excuse gisaluma ko excuse jëf ji ñu jëf Aziz Dabala ak waali amul nit lu ma mën a wax ne lii moo tax ma def ko ak lu mu mënti def jaru ko bu ma ànd ak yow sunu ànd neexatul nga dem ma dem bu doon mbiru xaalis la ma dem polis wala ma dem gendarmerie bu dee mbiru fiiraange la ma bàyyi la wuti keneen néew ma nag li ma wax moo am de dam la jox exemple dam la ni li faat Aziz Dabala tey jii bu ñu ñëwoon na waaye lu leen tax a faat nit kii nit kooku amalu ko excuse mënoo ne parce que dañu doon génn ma gis mu génn ak sama xarit ma fiir déedéet du excuse mënoo daf ma yoreloon xaalis du excuse mënoo ni dama gisoon moom xaalis moom soxla du excuse amul excuse lii kenn mënu ko ñaanal njekk wala ne dafa juum déet sénégalais tàmm nañ loolu nag doomu aadama def na lii dafa juum rek ah ah yenn yi tayeef la de parce que bu doon da nga juum mën nga faat sa bopp wala nga jam sa bopp da nga juum kay waaye jamoo sa bopp faatoo sa bopp nga dem faati keneen après ñu ne da nga juum waxu sénégalais excuse amul de juum amul de lu waay def moo ko tey souvent nag ñun sénégalais yi dañoo baax dañoo nekk ay jullit dañoo gëm yàlla nit day def dara ñu way ah dañoo juum dañoo juum dafa juum rek seytaane bari doole dafa juum seytaane bari na doole lool waaye lu seytaane bëri bëri bëri doole defu la pour yow nga jam sa bopp lu seytaane bëri bari bari doole defu la yow pour nga bañ a ndékki bañ a añ bañ a reer waaye yow defoo ko sa bopp boo ko def keneen yaa ko tay tayef tayef te am na vidéo yuy circuler yàlla dafa dogal Nabou Leye gii ba ñu nee polis ñëw na pour xool kan moo dee ñu ne Aziz Nabou Leye yére yi mu sollet ñëw ko si bés ba foofu du woon yére ku nite parce que munoo dégg sa xarit bi ngay àndal na jëloo mu soo takk sa bopp bi ne woy fu ma jëm jooy sol sa robb nga ñëw foofu sol ay yére yoo xamante ni mel ni kuy dem làmb ja loolu yëpp ba si benn vidéo bu ñu génn naan et après Aziz deena et après ñëppay dee loolu yëpp tamit lu ñu war a jàngat la mais balaa boobu dañuy ñëw déglu lii revue de presse tey am na ñu ko déglu mais dañ koy dégluwaat rek ñuy daal di ñëwaat suñu waxtaan bu ñu tappoo tey dina baax ñu déglu. nuyu Ndiaye ci anam wu ñaaw te doy waar ci Pikine Technopole l'observateur mi ngi ñuy xamale waa DIC division investigation criminelle yore enquête bi jàppagum nañu ci juróom-benn ci ñoom am na ca ñaari seex yu góor ak benn xale bu jigéen na leen alkaati DIC yi toppee ba teg leen loxo l'observateur mi ngi ñu koy wax xale bu jigéen bu ñu naan enn lay la ñu njëkk a convoqué auditionné ko waaye ci ay déclaration am ci la enquêteurs yi xamee ne moom xale bu jigéen bi li muy wax taxawul enquêteurs yi ko gëmloo ko ne ko dañu lay bàyyi nga dem ndax li ñuy wax doo ci dara ci la ñu ko libéré moom enn lay waaye l'observateur ne nañu fañ ko doon fàkkal fa la yoon ndax dafa génn rek tàmbali di communiqué ak yeneen suspect yi ci la enquêteurs yi xamee ne am na yeneen juróom-benn ñeenti nit kon yu laale ci yëf yi ba dañoo daw dem Touba raaxalo ji ci ñi màggali waa ji ñu jàpp ca Touba mu nangu ne moo faat Aziz Dabala ak kii di Wally l'Observateur nee nañu bañ ñaari seex yi rawatina kii di Assane de fitnaal ko baa ko indil seytaane moo tax moom waa ji mu àndoo sa yëf ki ñu njoxtu ne moom moo rey kii di Aziz ak Wally yéenekaay bi nee nañu nijaayam moo ko boole waa jii di El Hadji Mamadou Diaw moom it si yéen kay bi di l'observateur xëy nañu di xamal ne nangu na ne moo faat Aziz Dabala ak Wali wax na ko enquêteurs yi nee leen xeex bu ñu doon xeex keroog dimanche ci guddi ca la ko jamee paak bi ñu ko laajee ñaata jam-jami paak nga ko jam lim leen tontu mooy jàpp ko yéen kay bi nañu li enquête ba wane moom l'observateur moo di kii di Aziz Dabala jam nañu ko fukki jam-jami paak ak juróom maanaam quinze coups de couteau eh, ki nga xam ne moo di Wali fekk nañu ci moom fukki jam-jami paak ak benn di onze coups de couteau vox populi mi xëyee moom it coow loolu ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy xibaar ne ki ñuy tumaal ne moo def jëf ju ñaaw joojee ca Touba fa la ñu ko jàppee nijaayam moo ko boole ndax da doon bañ kon mu sàkkal ko pexe lise ko dikkaat ak ñun ci tëye goog tëye gum nañu ko juróom benn nit ci mbir mi ci ñoom journal bi nee nañu gelub Aziz Dabala ci la bokk am na it sa benn waay boo xamante ne ji ñi ngi ko mi ngi wuyoo ci turu Assane D lise ko nee nañu jàpp nañu ne mooy cerveau li xew enquête yi ne kay ne ñu enquête bi yoon di def ngir leeral li faat kii di Aziz Dabala ak Walid yëf yi mu ngay wéy bu baax a baax jàppagum nañu ci juróom-benn nit ci ñoom am na ci benn xale bu jigéen bu ñu naan Nabou Leye di kook nee nañu ko jege woon Aziz Dabala la am na téléphone portable boo xamante ne ji yéenekaay bi nee nañu lu aju ci nabu Leye moom moo ko moom bi ko enquêteurs yi exploité la ca nekk enquête mi ngi ñu koy wax kenn ci suspect yi ñu naan ko M Diawo journal enquête nee nañu wax na li tax mu rey Aziz ak kii di ak ni mu leen reyee ñu ki ñuy tuumal ne a mu la waaje wax du ma ci mën a yegg ku ko a xam di nga ko fekk ci xët mu njëkku yéen ngi ñuy wax li enquêteurs yi diggi jàpp moo di daal lu aju ci ñi faat ak ñi def jëf ju ñaaw joojee mbir la mu ñu planifié ba tax enquêteurs yi loolu la ñuy lijjanti Mamadou Lamine Diawo mi ñu jàpp ca Touba la mu ne woon moom rek moo faat kii di Aziz Dabala ak wàlli libération nañu changé na wax ja ba tuumal ca kii di seenu Diaw xale bu jigéen bii di nabu Leye libération nee nañu moom it sa li mu ne dafa déposé Aziz Dabala ba pare ñibbi këram dem tëdd di nelaw loolee ak li enquêteurs yi gis du benn bu dee ma nga woon këram di nelaw ab téléphone portable la moom ma nga woon fu yëfee xewee ca jamono jamuy xew yéen kay bi nañu bu yooyee yëpp jàllee nag li xew ci réew mi ba tax ñëpp demoon ca yëguñu ko journal bi mi nga ñuy xamal ne lu aju ci màggalu Tuubaa gi la bokk na ci journal yaakaar naa ni ko déggandoo olof la làkk te ñun nii fi toog ñëpp dégg nañu olof presse su bi yëpp ñëw nañu tey si lu jot a xew foofu ca Pikine Technopole Miss Dior maa ngi lay nuyu sister nee naa leen li jot a xew yëpp kenn rekk moo jaaxal sénégalais yi mooy Nabou Leye bii lu ko jaral lii lu ko si xiir lu ko ko jaral lu ko si xiir bu ñu toogoon ñu ne jàpp nañu Mamadou Paate Demba Ibrahima ñoo rey Aziz Dabala non sénégalais yi dañu ne ah loolu yàgg nañ ko dégg Sénégal rey nañ fa ku ne ba ci France gi rey nañ fi ku ne ba ci Amérique rey nañu ku ne mais lu yéem sénégalais yi la complicité bu nabu Leye amoon ak Aziz Dabala mel na ñu bokk ndey ak baay àdduna di dox tey ba ñu ne Aziz Dabala génn na àdduna du accident du feebar génnum àddunaam ñépp xam nañ nu mu demee mooy dañu ko jamati lu ëpp fukki paaka ak juróom ak métti benn paaka buñ la ko daba joon rek ak fukk ak juróom loolu autopsie bi génne ne waali jam nañ ko fukki paaka ak benn muy onze loolu la autopsie bi génne lu yéem sénégalais yi lu sëngéemloo sénégalais yi lu jooyloo sénégalais yi mooy jigéen gii di Nabou Leye moo bett ñépp ba si waa koñam ba ci ay àndandoom ba si ñi ko doon défendre si réseaux sociaux yi ne Nabou Leye moom génnee leen ko yàlla dogal barki démb samedi ba ma déggee ñu ne garde nañ ko man dama taf fotom ne buñ ko garde à takk na si rip caaye la si du si slip avant nag waxuma woon de mais ba ma déggee ñu ne convoqué nañ ko première fois bàyyi ko mu ñibbi deuxième fois bàyyi ko mu ñibbi troisième fois ñu ne ko soxna si tey da ngay fanaan si laa ne képp ku am sëriñ wutali ko Nabou Leye dina wuy ji procureur ñii ma doon seetaan barki démb déglu nañu loolu avant ñu police di def enquête nag tudduma ko amul nit buy génne vidéo ne Kaliphone de tuddoon na Nabou Leye déedéet dama doon maandu di xaar bi ma toogee déglu suñu yenn presse di wax may jàngat si ñoom lu nu wax ma nit may décortiquer comme ñëpp mais ba ma déggee ñu ne Nabou Leye mu ngi garde à vue am ñu dugg sama live ne boo gisee ñu garde à vue ko c'est pour sécuriser ko ma ne déet bu leen eggali foofu baaxul police nationale wala gendarmerie du ñu sécuriser benn doomu aadama di ko def garde à vue buñ la doon sécuriser kay bu dee tëngeej nga dëkk dañ leen jëlal oto demal Tamba wala jëlal oto ñëwul Sacré-Cœur wala leneen mais garde à vue fuñ ko defee am na ñu ñaaw njort ci yow te ñu bëri ñu ñu garde à vue si fukk neuf yëpp woy ji dañ procureur xëy na kenn ki dina am sens ñibbi këram. parce que mën nañ la garde à vue ngay roloon nit xaalis wala leneen nga ëlbatiku sa famille ñëw andi xaalis bi affaire bi yem foofu ne ah garde à vue woon nañ la waaye sa famille fay na am nga chance nga ñibbi genre yooyu day am mais comme yu mel nii faatu nit ñu garde à vue la si ay procureur dinga ko wuyu ji de lu leer muy dugg si nopp maanaam Nabou Leye coow lii du si slip caaye la si parce que fu problème bi doore ba histoire am ba moom mu mën a jël ki nga xamante ni mooy Aziz Dabala daa di ko ne nañ dem waaw ñu ànd dem kay waaye ba mu demee lu ñëw si ginnaaw moo luy garaaw li nag si la faat bi am d'après les journaux du sama wax de damay jottali sama classe gi bari nga xam ne ñu ngi TikTok duñu liir journaux yi wala duñu nekk Facebook amuñu sax Facebook te la plus plupart foofu la affaire yi di kiiwee TikTok moom rëmtam bi tam yaa sugee bi fi bari moo tax ñu siy waxtaan rek Nabou Leye non ñëpp jommi ñëpp jaaxle lu ko jaral lii yaayam tey gisuma ko waaye du lekk du naan yaayam parce que day ne sama doom capable lii ndeysaan loolu la mën a wax ju sañoon walla bàyyi ju sañoon di nga dund ba sa doom yow suul la doo dégg sa doom jëf na jëf ju ñaaw ci duniyaa jëf ji dafa romb ñaaw ñaaw bu doon tàmbaale yam jëf si jëf jii mu ngi Mali jëf jii dafa romb ñaaw parce que le problème en bu doon Nabou Leye ak Aziz Dabala xamewuñu sax ñu ne ay góor ñoo rey dugalaale ko si xamantewuñu mais koo xam ne ànd ngeen fecc ngeen rëm tëmbi tëmbi ngeen naan ngeen boisson añanoo ngeen voyagé noo ngeen dem ngeen fu ne kooku tey ñu ne deena ñu ne sa loxo dafa takk si mbir mi lu ko jar eh waay Samba nga rayoon sa bopp moo gën nga rey nit ki nga rayoon sa bopp moo gën nga rey nit ki te it Nabou lu ko gën a dugal wax nañ leen ko convoqué nañ ko bi mu demee wuy ji dañ ko bàyyi mu ñibbi dañ ko bàyyi mu biñ ko bàyyee mu ñibbi moom mi dof bu mu doon jël téléphone di jokkoog ñi nga xam ne jëf nañu jëf ji maanaam pour vous dire peut-être gars yi ah sunu policiers ay ngaaka lanu man maa ngi nii takk naa rip ci affaire bi mais xoola dem naa mais xoola dama expliqué lu ma expliqué nee nañ ma ñibbil seey leen ku dee rek a perte te xamul boobu ñu ngi koy gasal kam ay sunu police yi ne war naa leen ko de waxuma la ci àdduna waaye ci sous région bi police senegal number one bu ma gisee yenn dofi naan sunu police yi xamuñu dara sénégalais ñooy ay fenkat way ay dangaa àndut ak ñoom danga leen xamut béykat ba dafa jàng béy tailleur ba jàng ñaw mécanicien ba jàng deviser eh menuisier bi jàng daaj suñu policier yi jàng bu ñu la xoolee sa bët rek dinañ xam ne defkat nga dañ lay bàyyi nag di la bàyyi xel parce que bu dee premier jour ba nu woowee Nabou Guèye mu ñëw Nabou Leye ñu ne ko kërtim genre Kaliphone bi buñ ci bokkoon dinañ dégg ci réseau sociaux yi Nabou Leye jàpp nañ ko de hey Kaliphone day daw ne caaf xam na de ki bokkoon suñu biir sa gëm moom lañ ne kirtim ñu ngi samay tànk xaaral ma almet même bu dee dinañ ma jàpp ji mais damay almet mais lu yombal tey jii ñu ne leen kirtim ñoom ñëpp mooy ba ñu njëkkee jàpp jën bu mag bi dañ ko ne ñibbil moom mi dof gu mu doon mu ñibbi muy communiquer te xamul tey senegal loo communiquer tey sonaatel mu ngi koy déglu yéen ñii di communiquer yëpp mu ngi dégg lu ngeen di wax dafa des kay lijjantiwuñ ne mais bu desee polis ne tey dañu bëggoon Kaliphone nga génneel ñu lu mu waxoon daaw ci heure bii vite fait Sonatel génne ko ne Kaliphone daaw ci heure bii à vingt heures jokkoo naag Momadou lii lañ doon waxtaane jaay ma gerte bi jaay ma tàngal bi moo tax nag nit ñi yeewoo gunu kàngan yi lu bëri duñ ko wax si téléphone ponkali day na fiis foo nekk naay dañ daje resto ba gars yi resto ba wax lu ñuy wax ku ne dem mais allo dëxin bi nii nga ko lekkee cere soow bi nii nga ko lekkee eh ceebu jën bi tey neex na lépp tey Sonatel moom ngi lay déglu yow da nga ñëw rek ñu jox la ab puce puce lañ la jox puce puce bi xamoo ni ko defaree yow loo si am rek mooy dugal sa téléphone lépp tey ñoom ñu ngi toog seen seeni ay machine ak lépp lu ñu bëgg détecté dañ koy détecté te woon naa leen Sénégal gee ba keroog gaay yi yenn liveur yi génnee naan lii bu ñu moytul dañ koy nëpp nëppal kenn du xam ñu rey parce que police day protéger ma ne leen police amul benn sénégalais bu muy protéger rawatina si cadre rey nit boo nekkoon doomu président bi sax ñu ne doomu président bi de si bokk day leer de parce que maa ngi fàttaleku Sandaga am na ki nga xam ne da doon wecceeku xaalis mu jékki-jékki toog na une semaine gisuñu ko famem gisu ko fu muy liggéey gisuñu ko ndeke kooku rey nañ ko ba daggati ko def ko ci maalu oto mais police ba mu si duggee feeñal nañu ko def rendi daggati def si saak tëj si maalu oto gën a métti mu def semaine parce que am na ñoo xam ne am nañu cas yu mel noonu dee am na mais jàppagunu ñu ko def ñu yaakaar ni police nekkul di topp ñooñu en mën nga jékki-jékki fii ak dix police def benn communiqué ne ki doon wër l'an deux mille un jàpp nañ ko daa da woon dem Mauritanie wala Mali mu ngi doog a ñibbi si si réew mi parce que la plupart nit bu faatee nit day jéem a daw boo gisee tay jii ñi nga xamante ni jàpp nañ ne dëj am na si Sénégal ñu rey nit jàppaguñ ku ko def en polis police mu ngi si recherche yi de kooku dafa génn territoire bi te ñu ngi jokkoog ñi nga xam ne ñu ngi dëkk-dëkk yooyu pour xool luñ ko jàppee andi xool luñ ko jàppee andi xool luñ ko jàppee andi xool luñ ko jàppee andi bu leen yàqanti polis amul ku muy rawatina nag bi ki fa nekk nii muy commissaire Adramé Sarr bu ma juumul nekkoon na commissaire police golf bu ma juumul nekkoon na commissaire it police Pikine wala police ginnaaw raay bu ma juumul muy ko xareñ balaa mu fay nekk ñoom commissaire Diop ñi nga xam ne ñoo nekkoon sûreté urbain nekkoon dig léegi nekkatuñ fa ay kàngam lañu de respect à nos forces de sécurité et de défense tiktok kat moom de leen tiktok rek di dem tam bitam yaa asugay théâtre kat yi di théâtre mais sunu police sunu gendarmerie bu ngeen yaakaaree nekk ñu di sécuriser réew mi ak dëkk bi yéen a ngi door seen loxo ci ëkk de lu waay def na ko xoolaat Nabou Leye ñu ne leen ba nu xoolee téléphone am gis na mbir mi caaya la si du si silib caaya maanaam si ñu orchestre mbir mi sax si la bokk lii moo feeñagum ci enquête bi Ousseynou ak Assane Modou Lo mi nga xam ne moo taxaw selon enquête bi laay wax de man man waxuma fekkeewu ma moom nee na moom moo nangu ne yeneen gars yi ñu dara moom moo def lépp enquête bi feeñal nga tamit ne moom Assane moomu ku miin commissariat arrondissement bu Caaroy Gaar la ndax di nga faa yóbbu yóbbu yóbbu ay yoon mais moom simoo la Assane dee Ousseynou dee dee Amath Lamine muy juróom benn doomu aadama yooyu jàpp léegi nag boo xoolee diw mii mooy yulli wéef bi mooy yulli orange money bi moom benn jumeau bi xale ba mu dendal suñ leen waxee nii enquête bi na ngeen naan du dëgg jam nañ ko fii lu toll fukki jam-jam ak benn ah. jam ko à partir du suuf selon certificat bi jógee sa Pouye wuy ma fanweer ci ay coup. ah ay jam-jam fanweer. ah trente. boo benn yéen ñu jam ko ci kaw. xale bi laax waali de xale bi ni ko rayee. Hmm. les conclusions glaçantes du certificat de genre de mort sur Wally. trente coups de couteau. oui. l'appelé fatal. et latéro cervical. droite. haute mesurant centimètre centimètres boobu bële la ñëwaat fii onze autres de la nuque ah la partie haute du dos ñaaw na dégg nga loolu hmm. benn nit soose benn nit hmm. waa ci li wax rek may ma nangam yoruma sa orange mu ne sa wéef yor na yoruma bonjour les dégâts lii lañ njëkk a wax ba problème mu wéef yi génnaat encore ci procès verbal bi pourquoi nga yulli mu mel ni bu ñu amoon yeneen i problème tamit le jour si xaalis moom génn ci. Mhm. mais honorable depuis le premier jour bañ tegee loxo kii di Modou Lo euh, version bi mu joxe Sénégal yëpp moo waral tey. lan moo ci dugal na. donc euh, vidéo yi des na parce que bëgg naa leen woon sax vidéo bi nga xamante ni guddi bi nga xamante ni nee nañu faat nañu Aziz Dabala ak Wali Nabou Leye ba mu ñëwee fi nga xam ne fa mbir mi xewee yére yi mu soli d'abord yëre yi yére yi rek du yoon ma tegal leen ko foog naa ñu daal di ubbi gars yi doog a wax ñu ñëwaat seeneen vidéo yi lii ñaaw na de. yow si yére gis na lay yére bii la sol gis ngeen ko moo wane ginnaaw noonu. xaar ma dindi photo bi peut-être mu leer waa naka lañ lay waxee sa nit presque bi nga jàpp ne a bokk ndey ak baay rey nañ ko dee na nga ñëw sol yére yi euh, mu ngi nii gis ngeen seen bët ngeen xool na ko musóor woo muuru woo tiitoo yi si jabalaay ji xool jël si bi la baax na mu doy yow ki nga xam ne moom nga ne moo la jàngal fii moo dugal ci aar nga nekk tout temps bi nga nekk xale. gis ngeen lu mu sol mu ngi mel ni ku jëm de lii la sol. yow moo déggee boobu police a ngi si si mu ngi nii nangulee lii la sol lii. sa tranquillité warul lii muuroo sa bopp doom bi woo woo mu ngi noonu. yeneen koy gis nangoo ngi noonu. dégg ni dafa dee gis ni mu ngi noonu de ak doole bu bëri bi appartement bi ba indi ko ko. mu gis ngeen. mu ngi nii de. mu ngi nii de dara safu de. dara safu la mu gisee li damaa ne damaa ne est-ce que gars lii de day wen li dara safu la jigéen ñu ne la ki nga mel ni ko bokk ak ndey baay génn na àdduna si anam yu mu génnee àdduna dañ leen a jam dañu leen a rey ngay dem ci bérébee jëloo may luus jëloo borode jëloo grand bubu sol mel ni ku jëm ca làmb ja ñëw taxaw naa nii nii kaala sax tegoo ko sa bopp bi tiitoo